Cheikh bi li nga wax euh, dëgg la maanaam euh, wala fi dañ ne weddi tuuma du ragal waaye seetal sab der la man ku xam démb ak bërki démb xam nga ne chef de l'état président Macky Sall yàlla dañoo boole euh, muy ànd bu yàgg 2013 Touba yàlla dogal nit ñi di ko fa fàkkasal ak di ko sànn ay taraak ak di xajamal ab liggéeyam muy muñ man ma ne lii jaadu ma engagé créer benn mouvement bu ñu naan ànd fal Macky loolu àdduna bi yëpp xam nañ sëñ Abdou Lahad Mbacké Ndoulo euh, président du mouvement ànd falaat Macky yàlla dogal président ñu am ay relation ma koy jàppale fépp ci réew mi léegi nag am ku jékki-jékki génn ni Abdou Lahad Mbacké Ndoulo daal dafa bokkoon APR génn mais Abdou Lahad Mbacké Ndoulo mu bokk APR man lañ ci man la ci réew mi xam bu dee dëgg la yàlla bëgg man la ci réew mi xam boo jekkee-jekke nag ma riirandoo jóge fee rek am envie wax jekki-jekki génn di sànni say xeer euh, maanaam euh, réew du noonu lépp looy dugg lu ne wala nga cay wax da ko war a maîtriser mais di sànni ay xeer président Macky Sall moom ñëpp xam nañ ne maanaam liggéeyam ci Sénégal moom sungu fus njël la maanaam àndul ci ni mu doxale ndax jàppoon ni tamit wax na dëgg ci moom it ni mu doxale itam wax na dëgg ndax lu toll ni plan Sénégal émergent bi ko président tegee boobaak léegi kenn ku si ne xam nga ne bu doon cent soixante dix yëpp pare na kenn ku ne xam nga ne tournée bi mi président def def ci Fouta def Kédougou def Tamba fenn fu ne mu def fa ay fan xam nga ne kon fu mu defutoon dara du fa dem di fa intégré dara ah tey jii li gënoon a am solo ci réew mi mooy ay hôpital tey jii yàlla dogal na moo ngi moo ngi dox tey jii gis nañ euh, li ëpp solo ci Sénégal muy tey diggante maanaam euh, boo gëstu woon maanaam ci lu mel ni euh, ndaka lañ koy waxeete programme mu PDC bi mooy tey ji gox goxaan yi am na ñoo xam ne ci seen àdduna foogoon nañ ne courant du am ci seen i dëkk tey ji président Macky Sall maanaam dem na fa yóbbu fa courant ci fépp nag nga jóge ci loolu gis nga K K KMS 3 bi nga xam ne maanaam. ay ñetti fan ci ginnaaw demoon na pour di xool liggéey bi foofu ñu koy intégrer xam nga loolu lañ naan liggéey ndax président Macky Sall bi muy ñëw ci réew mi réew mi dafa amoon benn ngiro bu metti bu mu nekkoon réew mi yàqu vraiment Sénégal ñu bëgg ko maanaam saax-saaxee réew mi mu ñëw nag réew mi ñoo ko woowoon ci système bi réew mi ñoo ne woon ko dañuy pasar pasare alali réew mi loolu na ko sénégalais yi fàttaliku ñoom ñoo doon jooytu ne dañuy pasar pasaree alal réew mi moom mu ñëw ne li ngeen doon li ñu doon pasar pasaree nag kaay ma dugalal leen ko ci réew mi moo waral tey jii ñu baree bari nga xam ne tey jii nangu ñoo liggéey ñoo ngi yuuxu mais parce que fokk ñu yuuxu li am solo muy président Macky Sall xam na fi réew mi toll xam na fi réew mi nekkoon tey fi réew mi nekkoon démb ak fi mu ko indi tey waaye tey jii euh, kooku ne Abdoulaye Mbacke Ndoulo demal Ndoulo tey nga laajte turam kan lañ xam. man du dama fa def dama ko wax maa ngi ci maa ngi sama sama teraanga ña ko si dëkk ba ñëpp xam nañ maay kan foofu xale yi foofu seen finale man lañ koy tudde maa ngi def ay dimbal ci ngénte yi ci dëj yi fenn fa si ne la ma man maa ngi koy def ngir président de la république ki Sall xam na jàmbaar la mais boo tëbee tëb rek jóge fee dagg ca sa làng ga li ngay wax maîtriser wuñ dara di xajamal yooyu na ayte man dama jug engagé ay at ngi nii maa ngi ci parti bi di liggéey te caaxaanuma tak sama bokki bopp ak nit ñi nga xam ne damaa mujj sonn mais man bëggoonuma sax di sontu ci vraiment ci mais réew mi bitim réew fu ne sëñ Abdoulaye Mbacke Ndoulo mais yow da ngaa démissionné APR man leen maa ci parti bi ñu ne ma noonu mënut am parce que dafa am yoo xam ne ay jaxase la doo fekk sa nit vraiment même bu dul sa koo xamul sax nga ñëw fekk mu bay ab toolam ba mu rafet nga ñëw di ko rural muy am ab Abdoulaye Mbacke Ndoulo ne ci parti bi. donte sax yow waxuma la nga xam ko mais nga dégg ko gis liggéey bu rafet bi muy defal président nga ñëw rek jóge fee di di di teel mais yooyu na arrêté président Macky Sall mu ngi liggéey.